Mais... Gora Khouma secrétaire général euh, de l'Union des routiers du Sénégal URES affilié à la CTFC. waaw embouteillage yi day dafay ñëw leen mu xaw wàññeeku mais bari na loo xam ne tey jii am na puisque pont bi ñuy defar ci Padoua muy pont de l'hébergence bari na lu mu créé loolu noté nañ ko bi ci des tamit euh, artères yi. nit ñi oto yi fi ñu war di droité duñ fa droité mbedd yi xat na xat yoo xam ne yi ah, te buñ ko waxee ñu ne problème mu marché ambulant ba problème mu beneen jaaykat ba beneen yalwaankat day am problème donc li gën mooy oto buy wàcc client moo xam mbaam muy particulier bu am soxla sax daa war a bu taxawee wàcc tali bi complètement ngeen ni jàll loolu nag moo manqué Sénégal bi ki des parking amul amul amul Dakar réew moo mën di dem ci àdduna am na parking parking boo xam ne bii tey jii leen a ak li ko wër biir Dakar yëpp amul fa oto taxaw oto yëpp ci kaw tali bi taxaw même bu dee parking privé oto yi boo ko seetloo nit day jël rek beneen tableau mu def privé oto bi taxaw oto yooyu taxaw nag moo tax kenn du mën a dem parking day wàcc tali réew moo dem dañu def benn parking boo xam ne parking payant oto yëpp dañ fi dugg moo xam souterrain la moo xam étage la oto yëpp dañ fay dem bàyyi mbedd yi bu loolu amoon danañ xam ne Sénégal bariwul oto Dakar bariwul oto mais oto yi dañuy taxaw ci kaw tali bi loolu moo indi embouteillage yi boo xoolee nombre oto am Sénégal nga xool yeneen réew yi li nga xam ne Sénégal bariwul oto da ko mais fu li ma la wax rek oto yi ñoo amul fu ñu taxaw yoon moo amul maanaam yoo dégg ma a yoon amul même oto bi dem sax accotement amu ko boo xoolee mbedd Dakar yi da nga ne dañu fay taxaw di jaay ak oto yoo xam ne dañu leen taxaw ci kaw tali bi ku bëgg a def la nga bëgg a def la ku bëgg a jàng baaree mbedd ku bëgg a théâtre théâtre maanaam mbedd yi dañ koy occupé ba nga xam ne oto yi duñ mën a dem da ngay romb ci benn léegi jaar fa nga wàññi ko dafa jaar nga fekk fa ay poto ñu ne séeréer moo fa am waa dara moo fa am jamono boobu nag nga baare mbedd ma pour sa bëgg-bëgg moo xam dëj la moo xam ngénte la moo xam céet la moo xam gàmmu la loolu bokkoon na ci li indi embouteillage te day am bëccëg di am guddi loolu lépp day indi créer ak euh, embouteillage embouteillage maa ngi dégg benn waaye mu ne camion yi euh, ñooy indi embouteillage dakaar ma léegi yow xooloo li ngay wax boo jëlee corniche bi li commencé Almadies ba nga ñëw euh, palais de la république corniche boobu amul doo fa gis ab camion te boo ñëw sumu jun ba université en permanence embouteillage dafa am te doo fa gis benn camion kon problème bi du problème camion problème activité la oto yi ñoo amul fu ñu jaar loolu daal laa jàpp ne moom bokk na ci li nga xam ne yaatal mbedd yi te ku bëgg a tax wàcc tali bi loolu tax embouteillage jóge fi ñu yokk échangeurs yi fi utal solution place l'indépendance place l'indépendance bu ba am oto yi nekk ci kaw dina régler lu bare bare bare kere ay ay accotement maanaam bari na yoo xam ne kaw toj oto yi dafa taxaw loolu bu ñu defee dina baax bi ki des muy tamit li ñu teg kenn ku nekk ut sa buntu kër ba sa buntu magasin tag fa sa tableau interdiction na lii kat mairie ma ko jox ba yaa bind sa bopp moom la sa bopp mais boo bu sa oto tamit kenn du fa taxaw loolu dafa war a deñ mbedd mi yëpp a bokk. képp ku war a taxaw na taxaw ku war a dem dem mais boo xoolee li ko wër bu Dakar yëpp da fekk ñuy raxas oto yi ci kaw tali bi boo ñëwee ba nga taxaw ñu ne la ah yow dañu fa nga bàyyi sa caabi ñu raxas la sa oto bu tourné jotee ñu tourné la ko utal la place oto yëpp ci tali bi la te lool gouvernement mi ngi koy xool oto yi taxaw ci tali di xaar place loolu dama ne loolu la war a dañ solution yi nag mooy. ñu réglementé Dakar va-et-vient bi nu mu gën a gaawee rek embouteillage gën a néew nu mu gën a bloqué woo Sandaga li commencé Sandaga ba Lamine Gueye oto wóoru faa taxaw di yëpp oto wóoru faa taxaw di yëpp moo xam bagage ngay yëpp moo xam nit ngay yëpp loolu c'est pas normal loolu nag Lamine Gueye kenn mënu faa jaar kenn mënu faa jaar particulier taxi yaag camion yaag ñëpp kenn ku rek yaa ngi taxaw kenn ku rek yaa ngi taxaw loolu tax Lamine Gueye arrangé wul kenn loolu moom jàpp na ne lu ñu war a réglé la delloo njukkal euh, waa régie si euh, élément boobu euh, sunu ñaari gan yi tey ñi dalal nii kenn ki mooy Birame Cissé Birame Cissé moom télé informaticien la loolu liggéeyam la waaye nag daa bokk si COJER coger mooy kuréelu ndaw parti APR te it moom daa bokkit si COJER nouvelle dynamique moom ko bokk na si ñu ko sañ dëgg la dëgg la di la nuyu la ziar. suñu beneen gan bi moom du Bass la du baas moom jeune entrepreneur di yëngu si wàllum mbay wàllum euh, aviculture maanaam sàmm ginaar euh, fii ci fii ci ñaay yi euh, Mamadou Bass la ñuy tàmbalee Mamadou Bass li ngay yëngu leeral ko bu baax. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu mbokki jullit yëpp di baalu ñëpp àq ci weeru koor gi. di ñaan yàlla dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim nañ ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin tout d' abord balaa ma commencé aussi euh, di jaale euh, Sénégal mooy ci jéew bi fi amoon ci euh, à l' université UGB bu fa bu fa jógee ñun ñu ngi ci agriculture mun nañoo wax ne début looy bay ma dañuy def maraîchage mais suñu spécialisation pomme de terre la ok pomme de terre ngay bay mm-hmm. da nga ami ginaar tamit waaw ginaar aussi dañ koy def. ñaata ba sa bande ay ñaata ginaar ngay dugal. Euh, dañuy def bande de 1000 dañuy def band de cent dañuy def bande de 800. yow fi mu toll nii euh, mbay meeg euh, sàmm ginaar gi da nga jàng wala lu la lu la neex la rek nga dugg si. loolu non au départ moo amul woon njàng passion la woon passion bi dem poussé ñu bañ ja ba ñu ba ñu am. luñ ci jot a jàpp mosoo xalaat dem bitim réew ak mbëkk gaal mbëkk géej géej yooyu. bon mbëkk géej mosuñu ko xalaat séeréer. te mbir mi mu ngi lay dundal. bu baax macha allah. Euh, Khadija. waaw donc bu ñuy waxtaan wàllum entrepreneuriat je pense que day donn sujet bu passionnant surtout si si yi. parce que dañuy faral di wax ni. pour en revenir ak li ñu doon waxtaanee sànq ci wàllum njàng meeg njàng bu système bi. Mm. en général ñi muy teg sur le marché de l' emploi du ñu conformer li nga xam ne ñoom ñooy génnee ci système bi du ñu adéquat ak li nga xam ne moom mooy marché de l' emploi donc day fa day tax jeunes yu bëri dañuy daal di dem daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy entrepreneuriat mais parfois ce qui fait défaut mooy xamuñu peut-être ban secteur la ñu war dugg. Mm-hmm. ak naka la ñuy entreprendre la tamit ça fait vraiment défaut ci li nga xam ne peut-être pas faire de publicité mais am na yenn école yoo xam ne ci wàllum entrepreneuriat. ñu waa ANPEJ ak yooyu yooyu dañu war a jàngale. ñu mais est-ce que ñu ngi koy jàngale mi war est-ce que communication bi war est-ce que ndaw ñi xam nañ bu baax seen liggéey foofu est-ce que itam xam nañ naka la ñuy a def pour mën a dem bokk ci waa ANPEJ ak seen offre d'emploi yi ñuy amal loolu nekk na euh, mbir moo xam ne doon na lu jafe trop ci ci ci ndaw ji maintenant moom par rapport ak euh, activité am wala boog secteur d'activité am peut-être pour pour mu a leeral nit ñi. avec mm-hmm. combien a yan jafe-jafe la jànkonteel ci ci ci ci projet boobu noonu nga xam ne euh, peut-être ci la nekk di di suturlu ak itam peut-être bu doon am loo xam ne su ko si nguur gi dolli loon euh, dina doon loo xam ne peut-être dina gën a rentable pas pour moom kese mais pour ñeneen ñi nga xam ne bëgg na ñëw soobu ci mbir mi euh, Aïssatou Diop Tall waaw Tunkara moom Mouhamadou Bass dafa diplômé en gestion hmm. comptabilité ba pare doo ngay dugg ci ñi nga xamante ne mooy entrepreneuriat wàllu agriculteur tey jii yaa ngi bay yaa ngi am lu toll je pense que deux hectares ngay bay loolu noonu tey yow nga nekk jeune entrepreneur nga nekk ci wet gi nga nekk ku nga xamante ne dafa am matériel bu sophistiqué lu ci mel ni indien yi nga xamante ne léegi dañu envahir sunu marché bi di bayandoog sunu baykat yu ndaw yi entre guillemets tey jii yan impact la loolu am ci saw côté te aussi est-ce que yaa ngi jéem a approché yu nga xamante ne ay euh, structure yu état bi du ci mel ne ANPEJ wala tamit euh, délégation de l' entrepreneuriat de l' entrepreneuriat rapide ñu koy woowee DER ndax yu ni mel yooyu jéem nga leen approché. Paco. waaw man dama bëggoon déjà souligner deux faits. premier fait bi mooy est que ñoom xam nañ ni que cinquante pour cent des activités de l' agriculture sont sont bien des femmes. du mm-hmm. moins jigéen ñi ñoom ñoo koy. ñooy jigéen ñi bay. ñooy bay xaaju baykat yi ay jigéen lañ. ay jigéen lañ te soo xoolee aussi soixante dix pour cent de la nourriture des foyers sénégalais xam nga jigéen ñi ñoom ñoo koy entreprendre. Hmm. comprendre nga c'est-à-dire que tey jigéen ñi soo nee secteur xam nga agriculture mu un secteur clé de l'économie sénégalaise. Hmm. donc soo nee jigéen ñi jigéen ñi la war a gën a mën a jàppale pour moom sama gis-gis que góor ñi parce que mënu ma imaginer à soixante dix pour cent. ah de la nourriture buy dem ci foyer Sénégal yi jigéen ñi ñoom ñoo entreprendre ba loolu mën a am léegi nag question bi may posé mooy ni que ñoom je pense que dañu am un déficit de compétence hmm. parce que defe naa loolu mooy xam nga le le gros problème ah des jeunes qui veulent entreprendre dans l' agriculture hmm. ba bëggoon xam yan matuwaay hmm. ah ngeen ngeen ci ngeen ci bokk su chiffre yooyu fu ñu non c'est des recherches que j'ai fait. Ah, ay recherches yooyu ay gëstu yo def. waaw parce que j'ai des amis qui sont dans l'agriculture. waaw ñoom ñoo la ñoo ñoo ñoo joxe chiffres yooyu. aywa euh, am na loo si bëgg a wax. ba man dama bëggoon xam exactement rek ñoom euh, ci seen projet yi fan lañ ci toll actuellement. Mhm. moom moom mi nga xamante ne moo fi toog tey ak euh, li nga xamante ne moom mooy innovation par rapport au système de terre yéen ndax am ngeen ci ay jumtukaay yu bees. aywa innovation loolu moom daa am solo lool. Euh, Afidja. voilà en fait man côté euh, concurrence bi laay xool. Hmm. est-ce que ñoom euh, am nañ ay concurrents directs wala aussi contraintes yi hmm. étrangers yi ba xam dinañ dinañ faral parfois. di am euh, ay jafe-jafe ci wàllum peut-être marché bi. Hmm. étranger yi ñëw. ba xam mës na jànkonteel genre problème yooyu daal. ok contraintes yi etc. oh donc euh, félicité ko d'abord. Mhm. parce que ndaw la. te euh, don bu am solo la boo xam war nañ koy tenir en compte ci suñuy élaboration ci suñuy politique publique 42 virgule 3 pour cent dañu wax ne ñoom ay xale lañ. Mhm. ci ci Sénégal. léegi niñ leen di impliqué ba ñoom ñu mën a jël en compte li nga xamante ni moom la Paco wax léegi muy secteur bu mel ni agriculture. parce que wax nañ fi retour vers l' agriculture ba tàyyi Reva Reva mm. mais euh, nguur gi tamit kiyaat na ko làbbaliwaat na woote nañ ba sonn mais woote bi lan lay àndal ndax ñu ci bari ci ñoom lu ci ëpp dinañ dem ba taxawal seen bopp te du ñu gis état absence état la ñuy gën a remarqué mm-hmm. mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy gis état c'est c'est c'est de le constater dañuy dañuy ñëw def bokk ci nguur gi pour li ma benn booy doon wax ne ma moom réew bi la bokk mais pour mu mën a accéder ci ay financement il a fallu que mu ne mu ne APR la bokk hmm. waaw donc loolu aussi c'est une réalité boo xamante ni ñi nga xamante ni xëy na tey bëgg nañu entreprendre ils ont cette difficulté là même bu la ko ki yor mbir mi ñu dénk ko ko même bu la ko waxul sax yow yaay jàpp ne tant que nekkuloo dans les dispositions pour militer partisanerie boobu doo mën a accéder ci lool donc loolu aussi nekk beneen blocage Euh, moom par exemple les secrets de sa de la réussite wala dem ba taxaw bi lay laaj parce que accès à la terre c'est c'est une c'est c'est une problématique fii boo gisee commission de réforme bi ñu tegoon ci wàllu foncier bi amoon nañ liggéey bu rëy boo xam ñoo ngi ko ci doon def ñoo ngi xaar rapport bi ba tey donc boo ko donnoo xëy na ci say wéyjur ci lay gën a yomb est-ce que yow nan nga def ba accéder ci tool ah, les secrets de la réussite les obstacles objectifs blocage objectif yi yi nga xam mën nga koo partager ak ñi nga xamante ni tey bëgg nañu dem ci suuf si bay. Euh, loolu am na solo vraiment euh, Khadija dafa njëkk laaj. bi ngay tàmbali ñaata xaalis nga amoon. Euh, bi ñuy tàmbali on avait nous des projets personnels à côté yu nga xam ne nekkul woon directement ci agriculture bi am na ci leneen lu nekkoon mais am nañ ci kenn ku nga xam ne heureusement damay naan heureusement wala par chance la ñu nga xam ne amuñu ko mooy kenn ku nga xam ne ci famille bi mooy ci nijaay la. il a voulu nous accompagner. mais bi ngay tàmbali yow dugg si wàllu mbay ak euh, yar ginaar ñaata xaalis nga tàmbalee. on a débuté avec mille francs. cinquante mille francs xam nga loolu euh, maanaam mënoo ko sax méngale ak tey xale yi li ñuy fay pour dugg si looco yi. Mhm. minimum cinq cent mille francs ngay fay. Euh, te gis nañ ko fii Ali jàllo mhm. di ko delloo njukkal Ali Diallo moom moo tabax. centre commercial bi ne fii ci Kaas euh, la centre commercial bi ne bi gën a mag Afrique de l'Ouest it mooy bu Caaroy moom moo ko tabax moom wax si làmmiñu boppam ne ma bi may jógee Fuuta ñëw Ndakaaru ñaari téeméer moo ne woon sama poos te tey gis nga fi mu toll pour wane rek ne que euh, mën nga mën nga dem mm-hmm. léegi ay euh, kii tamit laaj na Khadija mm-hmm. maanaam bi ngay tàmbali mm-hmm. yan jafe-jafe nga am difficulté première yi ñu tàmbali yu ñu jëkk a joteel c' est les réalités sociales d' abord. c' réalité sociale yi mooy tey da ngay bëgg a dugg ci lenn tey d' habitude euh, réalité Sénégal mooy bu ñu ne kenn jàng na ba ami diplôme mu ngi dugg ci mbay sa famille léeg-léeg dañ jàpp ne yaa ngi reculé. Mm. avancé wu. loolu suñu réalité la benn. bu fekkee ne amoo kenn. koo xam ne dañ jàppoon na nga dof <laughs> am na ci mais quand am naa ci ñu nga xam ne nag gëmoon nañ ne mbir mi la. mais bu fekkee ne amoo ci ñu nga xam ne tey jii nii mën nañ la pousser dañuy naan di nga am benn partie bu nga xam ne découragement da ciy génn. léegi premier donc problème moom mooy contrainte sociale boobu. Mm. deuxième bi mooy accès à la terre. Mm. loolu mooy euh, laaju paju nan nga def ba am suuf. Euh, suuf bi au départ euh, ki ma ki ma lay wax nii mi nga xam ne moom moo ñu accompagner kooku moom moo débloqué xaalisu boppam moo jënd suuf si. kon fu mu toll nii dañ laa abal ñaari ñun dañoo collaborer ñooy liggéeyandoo actuellement. yaa moom waaw ça veut dire que moom actuellement suuf moom moo ko jënd. Mhm. xaalis boppam moom il est pas là. moom il est pas au Sénégal mi ngi extérieur moom li ko intéressé li ko gën a ñor mooy accompagner des jeunes yu nga xam ne ils sont ambitieux. Mhm. ñu nga xam ne bëgg nañ def dara te tamit. Euh, am ñame nangoo ñafe. Mhm. moom ñooñu lay nangoo di di. léegi euh, Euh, Aïssa Diop Tall laaj na wàllum concurrence bi hmm. gis nañ par exemple Sénégal India ñoom dañuy ñëw pombiteer la ñuy def. vraiment oh, euh, en quantité nan ngeen di. concurrence boobu déjà mën naa wax ne depuis presque déjà deux mois yi nii wala trois mois ñu ngi koy dund directement ak Indien yi parce que ñoom bàyyeetuñ feneen di indi Sénégal fii lañu koy bàyyee léegi euh, du moment où petit producteur bi pour mu mën a écouler sax écouler autant dix tonnes. c'est tout un problème te alors que ñoom mën nañ yor 100 tonnes écoulé ko ci benn jour. Euh, de production la. capacité de actuellement campagne bi ñu door a pare on a une production de 22 tonnes. 22 tonnes moom moo ne jàmbaar la. Mhm. te boo koy jaay maanaam ton bu ne ñaata la ñu koy jaay. Euh, day dépendre nag ci période bi. ak euh, concurrence bi fan la toll. parce que au départ bi nga xam ne ñu ngi door a pare production bi tombeek boobu mënoo jaay prix bi nga xam ne mën nga cee génn parce que boobu indien yi ñu ngi jaay te ñoom bu ñuy jaay dañuy livrer nit ñi euh, sur place ba pare prix bi nga xam ne ñoom sax bi ñu koy jaayee yow sax ñoo koo jaayee borcham mooy ca ca tool ba yow sax ñoo koo jaayee prix boobu hmm. te ñaareel ba da ngay am lu nga xam ne tamit mooy dañ ko doon wax ci côté citoyenneté mooy le sénégalais d'habitude boo waxee mu ne la pomme mbay mi la wala soble mbay mi la duñ ko hmm. jegee dañ ko jënd dañ ko duñ ko jënd donc ñooñ ñi nga xam ne élément support premier ñoo la ñoom ñoo ko waroon nekk duñ ko nekk. Mmh. léegi est-ce que mën nga jox benn ordre de prix par exemple indien yi. Mmh. ban différence de prix ngeen di am yéen par exemple yow sa sa sa sa kilogramme wala sa mmh. tonne. lay nekk ak indien yi la ñuy proposé. non yow du moment wu ba nga xam ne au chant le kilo boo ñëwee ñi koy jënd si foofu dañ la koy imposer le kilo par exemple à à 125 wala à 150. te ñëw bu génnee dañ koy jaar jaadale kilo à 300 voire à 400. léegi boobu. léegi indien bi nga xam ne ñoom dañ la koy ambaleel livré la ko ñoom mun nañ la ko jaayee le kilo à 150. différence 25 du moment wu yow emballé woo. dëgg la léegi euh, est-ce que am nga ndimbal boo xam ni jóge na fenn yi nga wax wàllum deer ak yooyu. Mm-hmm. est-ce que boobu ba léegi bi nga tàmbalee am na euh, yoon woo xam ne gis nga ñu xàll ko pour jeunes yu mel ni yéen di entreprendre. sérieusement non. première fois. première pourtant président teg na ay DER yooyu de fa ko DER bi di yëg nga ko président moo teg ANPEJ tamit président moo teg kooku waxal mais est ce que am na accessibilité mooy posé wu ci. accessibilité c' à dire ci problème ci yow parce que DER yaa ngi waxu DER sànq yaa ngi waxu ANPEJ mais sénégalais lam daal moom mi nga xam ne cinquante à cinquante mille francs le démarrer projet ba tey macha allah peut être ñu ngi suturlu mais gisuñu leen ñoom benn yoon teguñu leen benn yoon bët te nee nañ génne nañ fonds bu dee DER ñaata nga wax. ñaata milliards ñaata milliards gis nga. ñu teg ko sur le marché te am na sama benn xam naa du ñàkk mi ngi ñuy Euh, moom ci jeune entrepreneur euh, yi yi la bokk. tey bi mu njëkkee toog bi ñoom bi ñu toogee ak ministre bi ku nekk wax sa projet wax fi nga toll ñaata émission ñoo fi am yéen. <laughs> ku nekk wax fi nga toll euh, moom en personne bi mu toogee ak ministre bi tu as l'impression que ni dañ ko daf ko teg bët. Mhm. au lieu yow ñu dimbal la ñu ne la ah daal no yow fi nga toll fi ne nii sa projet li nga expliqué nii yow la woon dimbal. déedéet imagine toi. Mm. tey Momo Ndiaye mi ngi ñuy setaan moom tey boo ba mu tegee ordinateur am taalal ministre bi génne ko fi mu toll ci projet am yëpp ministre dafa koy soxla woon nañu ko. aywa euh, léegi euh, déficit de compétence. Bako mm-hmm. mu ngi koy euh, souligner est-ce que yéen amu leen loolu par exemple yow. gestion nga jàng après nga dem nekk ci mbay mi ak ci sàmm ginaar est-ce que am nga maanaam xam-xam bi pour ah, li nga si dugg. mais lépp mënuñu mënuñu mënuñu mënul am différence parce que lépp gestion la. parce que mais bu fekkee ne gestion bi fële nga ko jàngee boo demee tamit ca tool ba wala ca ginaar yi. si boo amul une bonne gestion doo ci génn. donc c' est juste que l' élément de plus bi ngay wuti bu fekkee ne directement ci wàllu mbay mi la mais bu fekkee ne du école rek nga ko mën a jàngi jee. les mo les recherches yaa ngi fi euh, tout le temps li nga xam ne am nañ accessibilité bi tey jii nii yomb nañu mooy internet. mais bu la neexee yaa a des cours yu nga xam ne da nga koy am vite fait ci lu gaaw te lu te du yomb. Euh, laaj mujj bi ju euh, wax ko. Euh, moo am solo lool mooy wàllum innovation. indi lu bees. fan ngeen si toll. ñun ci côté boobu noonu li ñuy proposé mooy ñun dañuy def pomme de terre sans engrais chimique. Hmm, bio. bio non du ma ne bio waaw mais naturel day day day day dafa bëri ay ay. voilà c'est plus compliqué mais quand on fait pomme de terre yu nga xam ne sans produit chimique. ok léegi sans engrais chimique bon loolu loolu loolu loolu c'est bien mais après léegi. Mhm. Euh, est-ce que si yéen rek lay yem nan la mhm. consommateur bi di xamee ni mhm. lii par exemple amul engrais chimique ba loolu euh, déterminer moom mu mu préférer seen bos. ci beneen bu bu beneen. tout à fait. bon euh, loolu tamit. élément lu nga xam ne war nañ ko déterminer. parce que boobu yëngagu leen si méthode de conservation bi nañu na si ñëwaat parce que. stockage conservation yooyu am problème. si non amuñ ci problème à 100 pour cent parce que ñun méthode de stockage bi ñu yor conservation bi autant ñun bu ancienne bi la ñuy def. mooy bi nga xam ne moom la fi maam bàyyi woon. mooy euh, am na ci euh, ay endroit yu nga xam ne. yu nga xam ne c'est mun nga fa denc. mais am na ci tamit euh, ñax noo ko ciy jëlee noo ko ciy noo ko ciy étaler noo ko ciy tegee ak noo koy defee ci suuf. ñax ñax. mais loolu baax tamit war ngeen gën a mën a méngoog jamono li fi maam doon def tey mënuñu wéy ba léegi. peut-être que la quantité n'est pas. mais loolu dafay soxla ay moyens pour nga méngoog jamono. wala quantité bi mu bëri ni pour nga am ay lu mel ne ay station yu nga pour nga xam ne am frigo ay frigo yooyu noonu. waaw yooyu moom day laaj ay mm. moyens. ay c'est des moyens. mais quand même pour ak 22 tonnes ak deux benn toolu 2 hectares rek xam naa du soxla yenn. kii mm. euh, moyen am da ko permettre Paco. léegi man dama bëggoon nag pour terminer laaj ko est-ce qu'ils connaissent les outils. Mm. pour pouvoir réussir dans l'agriculture. yan outil la PACO. ah mais y' c'est tout un ensemble. parce que tey. facteurs yeeg voilà xam nga. ay. ay par exemple euh, état subventionné na tracteurs yi xam nga. mais moom euh, deux dugal tracteur. non mais Tounkara on on de l'agriculture wax agriculture moderne. la mécanisation. ils ont besoin de de de. Ah, ce booy mécaniser il faut mu am superficie boo xam ne. c'est ngay dugalee tracteur bi ko dawal. c'est ça ah, boo fa dugalee tracteur bi. parle pour parce que Pago dañuy wax benn affaire gis nga réew mi. Mm. mbay bi euh, subvention yi ñuy wax engrais yooyu. yooyu dafa mel ni gerte la concerne mm. tey yii ñiy def maraîchage ñoom ban ban subvention. soxla non. Euh, ñiy def maraîchage. ban xeetu ndimbal ban xeetu subvention moo am pour ñoom. bon man à mon niveau amaguma ci information. est-ce ku fi xam ban ndimbal mooy dem si wàllu maraîchage ci réew mi. une sloganisation. na hmm? slogan yi lañ xam. loolu euh, waa ministère de l' agriculture. loolu euh, dañ e. na yow mën nga ci am ay tëddal. man liggéeyuma e. la ki moom TSE. waaw kooku sama doomu ndey la nag ñoo màggandoo vraiment démb la woon balaa tey di man bëggoon naa xam est-ce que moom mi ngi dem di rapproché wu di dem di xool yooyu financement wax ay DER ak yooyu noonu ah, et surtout may wax lancé appel yenn projet yi ah. ngir yàlla nañ koy jox ñi ko moom et surtout di ko jaarale fu mu war a jaar parce que dëkk bi bëri na yoo xamante ni mooy loolu. comme dëgg la day jaar ci suuf. mais euh, li oui euh, Modou. Euh, c' est que ci côté bi mu wax. déjà mooy est ce que ñu ngi rapproché wu ci structure yooyu noonu. DER mën nañu wax ne c' est récent. waaw DER ñu ngi door a ñëw installé guñ bu baax ah, ñoom li ci mel ni ANPEJ benn yoon laa fa dem ñaareelu ma ko. ndax lan dama fa dem déjà ki ma defandool entretien. bi muy wax sax man li ma ko présenté xamu ko. benn ñaareel ba bi ma ko expliquer seen projet bi ma pare ay formation développement personnel la ma doon wax. tey euh, ANPEJ moom vraiment seen der dafa yàqu si réew. ñetteel ba vraiment jeunes yi gisuñu seen bopp daal. troisième troisième loolu président yëg na ko. il me semble a beaucoup de soucis. élément bi mu wax léegi mooy. projet yi nga xam ne nañ ko joxe borom. Mhm. man j'ai presque mun naa deux amis yu nga xam ne déposé woon nañ seen i projet. bon mais dañuy xëy gis ñu koy déroulé. gis ñu sàcc seen projet. gis keneen di ko déroulé. Euh, loolu tamit. Euh, problème la si réew mi ah, réew mi bëri problème Tounkara réew mi dafa problème de. loolu loolu mais am na bu ma doon wax léegi nii ah. na ay yoo xam ne. c'est ça saafara yi kenn gisu ko kenn séddoo ko loolu tamit war nañ ko ah. jël à la place de au moins muy jóge ci ñoom hmm. gis nga li nga wax ni man bi ma jàngi jee bi ma demee Amérique ba ñëw laa ñëw bind sama projet yónnee ñu ne ma yow xanaa da nga dof yow. foo jege ma jékki-jékki sama kenn faale ma mais ma jékki-jékki gis sama projet ju koy ah déroulé. franchement euh, du Bass euh, xale bu am jom vraiment. Eh, di ñu fàttali rek nekk. bu démarrer avec 50 000. dañ la nax. dañ ma nax. dañ la nax boobu yeew yeewagu ma woon. <laughs> mais tamit professeur na sénégalais yeewu parce que mi ngi wax ne ba mu ba mu jàngee ba am ay ay lijaasaam. daal di def dugg ci ci wàllu mbay mi. ñi ñi mu dendal dañ ko doon wax ndax da ngaa dof pour ñoom boo jàngee il faut nga dem dugg ci bureau takk costume cravate rek. pour mën a loolu dëgg la eh, sama sama wóllare ehm, Moussa Niang. Eh, fii ci tableau Thiam ci Pikine. tëgg la foofu. moom dafa jàngi géologie fii si université Dakar ba am maîtrise am dem si mbaaru baayam euh, tey boo demee bijouterie am da ngay gis valeur ajoutée bi nga xam ni mu jàng euh, def def waaw mooy président euh, bijoutier fii ci Sénégal delloo ko delloo ko njukkal xale bu am jom parce que daf ñuy fàttali rek ne que wàññi moom si benn lay tàmbalee mm. tey fukki junni la am yàqu ko fowul caaxaanul dem dugal ko si mbay Euh, di di góor góorgóorlu euh, ñu mel nii nag dañ leen war a vraiment daal euh, lii lu daw yaram la parce que bu toogee moom ne ñaata at ak nii yaa ngi ci yëngu. ça fait déjà trois ans. ñetti at bu toogee moom ne. musul gis benn yoon ndimbal pour jeune buy def entrepreneuriat ci maraîchage. Euh, loolu tamit dafay dafay maanaam du xiirtal jeunes yi pour ñu euh, dem entreprendre te entrepreneuriat moom réew mu mu amul réew moom du mën a dem fenn parce que ñoom entrepreneurs yi ñoo ñu war a innover ñoom ñoo war a financer ñoom ñoo war a euh, vraiment te économie te buñ leen fulaalul soo moytul affaire yi du dem. tout c'est juste que pour wax ni on n'est pas seul. Mm-hmm. parce que am na ci ñu nga xam ne. ñu ngi def comme ñu lu ñuy def déjà récemment ñu ngi door a jóge benn voyage c'était au Maroc te chaque année dañ ko def c'est une caravane des jeunes entrepreneurs. foofu boo demee di nga gis ñoom ni ñuy produire c'est une rencontre c'est une rencontre euh, des investisseurs et des entrepreneurs et te ren on devait euh, c'est le président même euh, le président Macky Sall moo ñu waroon recevoir mais ñun dem nañ ba yegg ba nga xam ne ci programme waroon ñu recevoir dix minutes avant ñu war recevoir. Euh, mun nañoo wax ne ñu ne ñu le président ne vient plus. fan la woon c'était à Casa euh, au Maroc. boobu président mi ngi woon Maroc. mu ngi woon Maroc te waroon nañu recevoir te avant ñuy quitter fii yenn jeunes yi nga xam ne ba ñuy déplacé wu di dem. dañ leen waxoon ne vous allez rencontrer le président parce que nangam nangam a mais pour wax na ne ñun ak parce que on était avec d'autres jeunes yi nga xam ne d'autres nationalités. Mhm. ne serait-ce que image bu nga xam ne au moins ñooñu dinañu mën a respecter. non mais loolu du dara euh, rencontre président du dara. du problème rencontré ko. mais le fait que ñun on avec d'autres jeunes yi nga xam ne d'autres nationalités. mais ñooñu à la fin dañu doon retaan naa ñu yéen vous même le président votre président ne vous respecte pas parce que. respecte seen seen rendez-vous. yooyu moom yëpp xam naa biir xam nga xale dañuy mbalaganteeg yooyu xam naa foofu lañ ko jàpp mais euh, président rencontré ko bañ ko rencontré loolu du dara lu am solo mooy yow nga demee xam-xam liggéey. am ay jikko yu baax. ba pare nga gëm ne yow amul kenn ku mën a dox sa diggante ak yow nga tekki yow loolu da nga koy gëm. président di bés dina ñëw loolu boo gëmee nga am sa tool boo xam ne président mooy ñëw moom si boppam. ñëw euh, fekk la si sa tool foofu. Euh, vraiment loolu nag. Euh, liggéey la boo xam ne nag doon tey tey tey ñetti at rek nga tàmbali yow sa chiffre d'affaires at mi ñëpp ay ñaata lay lay toll. Mm, ça pas mën na dem ci à peu près deux voire deux millions cinq cent. deux million cinq cent waaw deux millions cinq cent de euh, te intrant yi ngay def yëpp ñaata ngay investir nga jàpp at mu ne. bon euh, mën naa dem tamit ba un million cinq cent un million trois cent. waaw te kon dina benn million boo xam ne dina ko def si biir dina ko damm si nafa xam tey Sénégal fii boo mënee def un million. Euh, vraiment tey baykat pour mu am. mais dañ ko bokk. waaw waaw. yow 500 000 nga am moom une équipe. de combien de personnes. voilà équipe bi ñaata ngeen. bon on a trois personnes yu nga xam ne ñoom ñooy carré ñoo nekk carrément sur le terrain ak ñenn ñu nga xam ne ñooy ñooy ñooy wàññi si benn lay tàmbalee surtout boo xëyee am sa sutura dem fenn di daan sa doole loolu rek lu gune gu mën na la faa fekk. Birame Cissé yow COJER nouvelle dynamique euh, yow yaa ko sanc maanaam daal ngeen beddeeku si biir COJER euh, depuis kañ nga bokk COJER yow. bon tout d'abord Tounkara maa leen nuyu di la sant di nuyu téléspectateurs yi di la xamal tamit que ni ngi naqarlu joto xew université Gaston Berger tiis bu fa am jaale euh, waa juróom jël jaare ko teg si loxo président bon pour Kella euh, Bokk Kojer je pense que <coughs> ñun mun naa wax ne nous sommes les membres fondateurs de l'APR nous faisons partie des membres fondateurs de l'APR. très bien yow léegi euh, COJER euh, moom la Thérèse Faye jiite COJER national bon sama sama étudiante la woon nag fii ci université bu Dakar euh, moom yéen ngeen ñëw xeetu coup d'état ngeen def parce que da ngeen ñëw sanc beneen kuréel si biir COJER tuddee ko COJER nouvelle dynamique loolu président yëg na ko. <laughs> bon de toute façon comme ni ñu ko waxee da coup d'état coup ko. et soo ne beneen COJER beneen COJER am je pense que c' est la COJER nationale jusqu'à présent mais on dit COJER nouvelle dynamique ça veut dire quoi c'est-à-dire COJER nationale avec de, euh, de nouvelles démarches. kan moo jiite COJER nouvelle dynamique. Euh, Moussa Balde. léegi Moussa Balde moom ak euh, Thérèse fay nan lañ leen mën a xoolee. bon frère ñun ñu ngi biir COJER national. est-ce que COJER Thérèse Faye d'accord na si ngeen créer COJER nouvelle dynamique. c'est pas Thérèse Faye mais d'accord pour ñu créer COJER Dialogue ah, ou ah. pas je dis que ñun nous sommes la COJER nationale mais nous sommes pas euh, une autre COJER national bi ñun bokk dañoo toog gis que la démarche de la COJER nu muy doxo ni muy demee jëmulu président ci kanam ñun ñu toog jàngat ko ne suñ bàyyi lii mu dem fu ñu jëm di ko xam kon jot nañu jóg reprendre le plan bu amee. man de li mu li mu wax tout à l'heure daf ma xaw a. daf la tiital <laughs> gis naa <laughs> parce que le fait que mu ne en fait Thérèse moo jiite COJER. c'est ça. ki jiite amul droit pour pour euh, wax ñu créer waat beneen COJER ci suuf peut-être. nee na ak deux la senior ak waaw noonu de lañ ko mën a tuddee bon d'après li ma li ma dégg. mais man boobu dama koy dama koy zappé. je vais quand même euh, ñëw ci seet ay réalisation lan lañ fi jot a defagum boog COJER parce que COJER COJER man boog li ma leen di dégg ci lu bëri ay. xeex la ŋaayoo mm. vraiment. loolu di vrai asulaaj ah, lu am solo. vraiment loolu moom euh, bindal ñu ngi ñëw. voilà COJER lan la réaliser de de de positif en fait moom peut-être euh, sama question muy ñëw xëñ ne avant question astu bi moom mooy COJER nouvelle dynamique da ngeen da ngeen gis ni COJER national bi euh, yoon bi mu jël wala boog ba mu fi toog bañ ko sancee ba léegi ni mu fiy defagum taxawul ngir jëmale euh, président Macky Sall ci kanam yéen COJER nouvelle dynamique lan ngeen indi lu bees loo xam ne hmm. xëy na su ngeen ko tëralee Macky Sall ci élection présidentielle yi ñu ñu dëgmal dina ci mën a jëlee ndam beneen bi mooy COJER national comme ni ñu ko waxee rek saa ñu ko déggee rek coow moo am xiiroo ŋaayoo bi ci mujj moom mooy sortie Idrissa Seck bi mu def jëm ci la xewoon fële ca université Gaston Berger Saint Gaston Berger bu Saint-Louis ñu gis tam ngeen génn amaat ci beneen taxawaay donc yéen dafa mel ni euh, bras armé si je peux m'exprimer ainsi ngeen bu nguur bi taxaw pour xiiroo ŋaayoo xeex yuuxu saaga doorante rek moo fa taxaw ndax loolu yéen ba pare ngeen pour casser rythme boobu ci cogère euh, nouvelle dynamique bi nga xam ne ngeen waaw moom dama koy laaj parce que COJER national bi dafay am euh, ñaari ki nga xamante ne mooy Thérèse euh, Diouf Faye je sais pas comment. Faye Diouf mhm. ak ki nga xamante ne mooy Mariam Thiam Babou ñoom ñaar gegeer la seen biir tey jii est-ce que du COJER bi mu bu bees bi nii bu dafa nekk ak Mariam Thiam Babou wala lan. très bien man li may wax li may njëkk signaler mooy nekk ñoom pour commencer président de la république def légitimité dafa légitimité légitimé waaw légitimé Thérèse Faye wëlbatiku désavoué leen parce que il a tenu un discours bu ñuy mujj Saly fan la woon Saly ah Saly yéen ngeen ni da ngeen dox donc ci discipline ak euh, ndigalu le patron. Macky wëlbatiku créer beneen cogère. en fait mhm. est-ce que du ay affaire guerre de positionnement. c'est ay affaire de privilège parce que man su ma jàppee ni da ngeen di liggéey pour président dangeen ngeen war a suivre quand même directive yu muy joxe. parce que moom ci boppam moo teg Thérèse Faye foofu. légitimité nga ko ba pare jékki-jékki désavoué leen. wax ni que dafa bëgg ngeen ànd ngeen nekk benn ngeen wëlbatiku di créer de gauche à droite à la limite da ngeen di dem sax ba ngeen di comme ni Khadija wax. est-ce qu'ils sont à la hauteur sax pour mën a tëkkale seen bopp ak Thérèse. non non parce que am nañ formation politique boobu. man ma yegg foofu sax mais dama bëgg xam yéen lan la lan ngeen bëgg à la limite. lan lan lañ bëgg mais euh, Paco tamit président je pense que dafa xaw a am un petit problème. parce que sànq dégg nga li fi professeur Yankhoba Seydi wax. président nee woon na problème bourse jeex na ci réew problème bi jeexul président. nee na euh, Thérèse l'a légitimé xale yi ñëw di bras de fer ak moom donc est-ce que du autorité président moom la ñu on se pose des questions man li ma ci li ma bëgg wax mooy tey ji COJER national parce que même bu fekkee ne da ngeen accompagner aussi une politique du chef de l'État dafa am lu ngeen di représenter ci jeunesse sénégalaise mm-hmm. mais yéen seen valeur ajouté tey est-ce que honnêtement yéen yëg ngeen ni am ngeen jeexital ci population bi keroog surtout la population les jeunes keroog damay seetaan benn débat en France par rapport un jeune bu jógee de la la République en marche. Mm. la coalition au pouvoir keneen ki jógee les républicain keneen ki jógee ci euh, Jean-Luc Mélenchon. Mm-hmm. parti de gauche. mais débat bi boo koy seetaan niveau bi. Mm. il parlait de fiscalité. il parlait de de d'orientation budgétaire. niveau bi jóg ci kaw. Mm. ñëpp kontaan mais yéen tey. tey est-ce que seen combat bi njëkk du ngeen fexe ba l'école du parti nekk mhm. une réalité dans votre parti ngeen am école boo xamante ni dinañ leen ci jàngal parce que aujourd'hui vous avez un problème de formation ça c'est la première ouais. des choses beneen bi mooy da ngeen di gëttan président di réclamer poste yoo xamante ni vous n'avez pas le profil de l'emploi mmh. président il est obligé d'aller chercher une autre personne boo xamante ni bokkul ci yéen mais bu ko nommee xeex bi jóg mhm. jii li ngeen di def au sein de votre COJER là ñiy taxaw parce que président moo ko def depuis je rappelle que depuis Sitor Ndour Abdoulaye Wade débauché woon ko jëlee ko ci rang wu APR. président dafa dafa def ce qu'on appelle il mise sur ce qu'on appelle un leadership éclaté. c'est-à-dire ku mu wéetal ne la yow la. bon là je prends légèrement le contre-pied de mon ami c'est-à-dire ko mais dafa ni moom loolu moo ko arrangé c'est-à-dire que problème boobu la am même dans tous les départements du pays il ne mise du ne diw mooy le coordonnateur. Mm. donc il n'a pas de parti il a une machine électorale. ku mu wéetal tey jii bu moo tax ku génn bureau da ngay selfie ak moom muy ree ngay ree parce que ku mu wéetal ne la affaire bi yow la. Mm. bats mais il mise sur ça donc. Ah pour man il est à la base de tout ça. léegi euh, Birame Cissé. Mm-hmm. li njëkk a wax mooy euh, COJER. Euh, ñëpp naxaru nañ ni xuloo xeexoo ŋaayoo surtout lañ leen gën a xamee gën leen ràññee. lu tax loolu. bon de toute façon comme ni nga ko waxee ne dañoo xuloo chance ak xuloo ak ŋaayoo amu ko. parce que tey bëgg-bëgg la yëkk-yëkk parce que ku nekk tey bëgg nga affaire bu dox ku nekk tey bëgg nga tey sa devoir sa euh, sa responsabilité par si biir projet nga fësal ko wane ko. si loolu kon nu ma la ko waxee léegi COJER Liberdina je damay réitérer samay propos c' pas beneen COJER c' la COJER national j'ai dit COJER nouvelle dynamique c' la COJER nationale nouvelle parce que on s'est rendu compte que depuis bon bout dañoo gis ne la démarche la COJER san ne passe pas. c'est-à-dire mais loolu waxoon nga ko attends j'arrive laisse ah, <laughs> ñu gis ne waxoon nga ko ñu gis ne ñu gis ne ak xeex ñu gis ne ñu gis ne mag ñu gis ne Thérèse ces démarches nu mu ko a doxalee doxalee ko ñun tamit on a repris le flambeau mais tey ji pour te dire moo la la tey amul scission tey treize su fekkee dafa oote loo xam ne nii c'est dans l'intérêt du président dans l'intérêt du parti pourquoi pas dañ koy dem fekk ji mais suñu gisee loo xam ne treize il fait des choses yoo xam ne nii c'est pas dans l'intérêt général c'est pas dans l'intérêt du parti ñun tamit ay jeunes leen tere gën ñu xariñ gën ñoo xam ne ñuy doxalee parti gën ñu dàq ñëw ñu jóg jël suñu responsabilité à deux mains parce que duñ toog après gis démarche yoo xam ne mu ngi biir colère tey si nekk si biir colère tey démarche ñu bàyyi ko do avant di génn di ngeen liggéey moom léegi euh, beneen laaj bi li Astou Dione wax mooy yéen COJER lan ngeen réaliser gu positif voilà euh, pour euh, pour loolu je pense que tey si nekk COJER nouvelle dynamique ñun tey loolu moo ñu tax a jóg parce que may félicité suñu jeune bi toog fii nii tey di jeune entrepreneur boo xam ne dama koy félicité. Mamadou Bass bokkul Cogère récupération bokkul Cogère xam nga Cogère xam félicité parce que li fi wax dafa nekk loo xam ne nii franchement tey modèle nga pour la jeunesse sénégalaise tey ñun ñëpp dañu war a xool si yow parce que démarrer à cinquante mille francs tey bay bay chiffre chiffre d'affaires à deux millions cent. waaw ah, si lan ngeen réalisé si nouvelle dynamique. tey dañoo jóg lan lañ réaliser mooy jàppale président sur la vision de la politique du président. loolu ngeen réalisation ça. non si ah, jàppale réalisation. la la COJER la c'est la convergence des jeunes républicains. oui la convergence des jeunes mooy ndaw parti affaire oui tey ndawu parti APR tey taxawaay bu njëkk xam nga lan. Mm. mooy mu taxaw fexe ba président. li muy liggéey. lu mm. président di liggéey pour Sénégal. Mm. ñun ñu taxaw si ba loolu réalisé. loolu d'accord nañu ñu leen koy fekk loolu. Euh, Aïssatou Aïssatou may ma ngeen cee am ay euh, résultats. am résultat par sa calme euh, mm-hmm. li nga wax nii c'est un boo xam ne ñëpp d'accord nañ si amul problème. Mm-hmm. léegi bu ñu jógee ci principe bi nañu wàcc sur le terrain des réalisations loolu mooy laaju asu jonn mm-hmm. ban réalisation bu concrète nga ñuy mën ñëw tegal ñu sur la table par rapport à euh, par rapport à réalisation projet national parce que ñun tey suñu wareef lan la da dañ ko accentuer sur deux sur deux choses ce qu'on appelle la massification du parti et quoi l'animation du parti maintenant si je parle massification du parti ça veut quoi tey président Macky Sall am na ay jeunes yoo xam ne ñoo fi nekkoon en 2012 tey je pense que war nañu def liggéey boo xam ne nii tey Sénégalais yi jeunes yi ñu fi nekk mun na ñëw adhérer par rapport si ah, mais boobu lañ lay laaj nag anamu lan ngeen defagum réalisation hmm. concrète pratique xam nga jeune bi toog fii dafa ñëw ne la deux hectares hmm. laay bay vingt-deux tonnes laay produire hmm. dinaa si génne deux millions cinq cent am na ay bandu mille ginaar xam nga loolu dëgg yàlla c'est concret. weddi loolu lañ laaj loolu bëgg wax xaaral xaaral bijou wax. professeur xam naa ne fii li ngeen koy laaj du ko tontu. mais man di ci gën a tuuti rek mooy est-ce que ñoom si seen jëm bopp est-ce xam ngeen loolu. si loolu si loolu mu ñëw si li que li nga wax ne réalisation yi si Magnificat on a organisé des formation des formations au de des jeune jeunes Sénégal regroupé neen ay jeunes récemment def nañ ko parcelle formé si si l'entrepreneuriat. comme tey xale bi ñuy toog euh, te xale bi kii euh, jeune toog tey. on a formé des jeunes sur l'entrepreneuriat pourquoi. très euh, ñun ñu si jeune après war na passé 3000 jeunes yoo xam ne on les a formés la 3000 jeunes fan ngeen leen formé. exactement parcelle la dëkk la dernière. de la dernière formation qu'on a fait ñu ko defee fii si siège de l'APR siège Amadou Ba bi. lañ ko defee formation en leadership. 3000 ngeen non non j'ai pas dit ça j'ai dit au niveau national. à niveau national j'ai dit la dernière formation qu'on a fait. foofu la mais am na yeneen formation ok léegi formation ak lan ngeen def. on a fait formation des jeunes. ak lan si on dit formation c'est quoi on a dit formation en leadership formation en entrepreneuriat euh, en entrepreneuriat pour accompagner le président sur ses projets accompagner le président sur l'emploi des jeunes parce que tey président. li ñu wax si emploi des jeunes lu ko lu ko njëkk a tax a jóg c' est entrepreneuriat. Aïssatou. man dama bëgg rek mu leeral la ndax COJER nouvelle dynamique bi da ngeen a ànd ak Mariem Babou Thiam wala. non ànduñu am Mariem baabu caam parce que d' abord Mariem Babou Thiam. bon yéen àndul la ak kenn Aïssatou yaa ngi ñuy delloo waat ci ay affaire politique politicienne Aïssatou ñun ñu ngi woon ci ay réalisation Aïssatou ñoom ñëpp dañuy xeex léegi yow la mooy seen base non ñëw foofu noonu waaw léegi léegi euh, kii dafa laaj Aïssatou Aïssatou Aïssatou waaw moom moo laaj est-ce que yéen kan ngeen ànd ne mais tontu na nee àndul ñu. ak non àggul àggul am na lu muy wax ci Mariam. ne ah, <laughs> Aïssatou foog ay Aïssatou bon léegi Paco nee est-ce que du yéen guerre de positionnement loolu c'est ça c'est je pense que ñu revenir un peu parce que ñun dafa am mission bi ñuy dox si la COJER nationale dafa mission bi ñuy dox mission bi ñuy jàppale président sur ses mu am ce qu'on appelle la visibilité la vulgarisation des réalisations du président ñun en tant que jeune de l'APR te loolu tey ñu si dox par exemple bu ñëwaa léegi si entrepreneur bi toog nga xam ne tey dafa diriger entreprise tey ñun ñu waral la léeg-léeg mu ngi koy wax ne tey moom am na jeunes yoo xam ne ils sont pas au courant de ce qui se passe yow nga ko léegi tey président dafa teg structure et yoo xam ne jëmale ko ci emploi jëmale ko ci ay financement des jeunes et des femmes comme li nga wax ni ANPEJ comme ni nga ko waxee léegi ne ba nga fa demee waa ji am na mais man tamit j'ai vu des yoo xam ne ils sont rapprochés à l'ANPEJ ñu financé leen aussi ñun si suñu wareef la en tant que les jeunes du parti tey ñu dem tamit par exemple tey président teg na li wax la DER la délégation générale de l'emploi rapide en ce mu ngi koy mettre en œuvre à travers le Sénégal dans tous les départements gis ngeen ko. Euh, tous les départements nag yow tamit. <laughs> oui dans tous les départements gis ngeen ko euh, Pape Sarr def na tournée dem na département bu nekk. bon d' accord loolu propagande léegi li ñu bëgg xam mooy li Pape euh, Djibi laaj. Mhm. ban valeur ajoutée yéen ngeen am si population bi. maanaam ban njariñ. ngeen amal askanu Sénégal. waaw bon jëriñ. njëriñ mi amal askanu Sénégal moom moom léegi léegi moo la koy wax. parce que amul de. parce que parce que tey njëriñ mi amal euh, askanu Sénégal c'est très simple. wax école bi partem bi aussi école bi tey les jeunes. tey les jeunes ñun man jeune la je suis un jeune sénégalais. tey am na loo ne peut information yegg si na si man yegg su si jeune bële. te information boobu dama ko transmettre jeune bi. kon ma la ko waxee DER bi. yéen COJER tey da ngeen am doxalinu. jël information yu utile yi ngeen yóbbul ko population yaa ngeen def loolu. si ñu koy def comme si comme jox ñu. exemple sensibiliser la jeunesse. sur ça mais li ma wax léegi par exemple tey dañuy dem si benn gox. dañuy dem si benn dañuy dem si benn information utile waaw. dañuy dem si benn gox. Mhm. jël ay jeunes former leen. si ñu leen former. comme ban gox. wax naa ko léegi def nañ ko parcelle. parcelle ak fan ko def non def nañ ko Kaolack. bàyyi parcelle ko non non dama ne dernière formation on l'a fait à parcelle. def ngeen parcelle def Kaolack def nañ Kaolack def nañ Matam. Matam def euh, def nañ Ziguinchor. Mhm. Euh, Louga. def nañ euh, kii. loolu mooy COJER national ah. yéen yaa boobu kan moo kan mooy diriger formation yooyu. formation bi ñun dañoo amoon tey kii naa chargé des formations. ku ko financé Moussa Balde. Moussa Balde ku ko financé. kan moo koy financé yooyu. loolu c' est la COJER ñoo koy financé. Euh, boo xam ne nii si loolu la ñuy sukkandiku pour def seen activité. mun nga ñu leeral système boobu COJER nan ngeen def ba am xaalis. dañuy cotiser. ñaata dañ cotiser ku nekk li nga am nga cotiser nga dugal léegi après ñuy dem liggéey. ku nekk li nga am rek ngay cotiser. waaw ku nekk par rapport léegi euh, Pa Djibi leneen lu mu laaj mooy école du parti lu tax boobu ba léegi APR amul école du parti. Euh, bon soo APR je pense que euh, APR am na école du parti. waxuma ne amul mi ngi am na Jibril war a ko yor. mais dama ne est-ce que école baa ngi dox est-ce que bu est-ce que yéen koy fréquenter est-ce que moo ngi am loo xamante ni moo ngi koy indi la réponse waaw am na. école part bi ngi dox. si école part bi mi ngi dox bu baax ñu koy fréquenter ñu ngi recevoir ay formation en politique. Mhm. fan ngeen koy recevoir bon à chaque fois on le fait. fan euh, la dernière fois qu'on la ñu ko def fii méridien. mais loolu mooy problème bi mooy amul. pourquoi su nekkee méridien ngeen koy defee mooy amul école dafa am fu mu ah. war a nekk. Mm. ñu leen fay fekk ñu élaborer formation yi ñu ne ci lii et puis dans toutes les dans lay am méridien moom du formation benn waaye ñëw def kii parti politique yi bëri yaa jël seen jeune leen regroupé <laughs> leen si ay si ay place hôtel comme comme ban parti ban parti comme da ko doon def non non non PDS fii PDS man fekkee naa seen formation fii nii ci point E boobu Pape Sadio Thiam moom moo fa nekkoon fii ci point E comprendre nga donc bu dee bu dee parti socialiste dégg loolu góor gi siis moo yoroon parti bi ñëpp xamoon nañ ko muy def formation mooy maire yéen mm. donc yéen aujourd'hui déjà pour man sax euh, problème mu profil encore une fois par rapport à maître Djibril ah, War ak seen idéologie déjà parce que amu leen Astou Dione loo bëgg wax lii moo euh, wax ci benn ñu objectif parce qu'on est là pas pour ñuy waxante lu lu ku nekk lu la neex wax parce que vraiment COJER yaa ngi koy wax mais lii convaincre wul kenn ku bëggoon ñëw par exemple intégrer COJER kii toog wax na fi ay projet yu leer nañ yoo xamante ni ku si nekk sax yow boo amul woon euh, ah, sens wala boog benn intention pour dugg ci entrepreneuriat da ngay am envie parce qu'il nous a donné tous l'envie mais en tant que jeune comme moom gisoo déggaguñu vraiment loo xamante ni ça nu nous convaincre et surtout vous avez dit tout à l'heure que di COJER président de la république ci ay réalisation la koy accompagner ñu wax la est-ce que yow yaa ngi dimbali ñenn ngi dimbali population bi nga ni waaw mais c'est contradictoire parce que président te waxuñu benn réalisation si. non non non mais quand même vraiment. non je vous ai dit non non formé wu ñu 3000 jeunes. soit c'est le président de la République qui n'a pas réalisé grand chose ba ngeen mën te loolu nekk. Euh, moom moom day wax naa tey dafay wax am na lu lay bokk. as mën ko déglu bon euh, léegi euh, lan ngay jeexle parce que waxtu bi jàpp mais est-ce que président mm. xam na. ne yéen COJER nouvelle dynamique yaa ngeen existé yëg bon président je pense que c' l'homme le plus informé si euh, Sénégal. non est ce que yëg président dalal na leen. professeur président dalal ni président dalalu leen. professeur ñu euh, qui vient de m'envoyer un SMS en stipulant que qu'il y a. 34 jeunes de la cochère de Foundiougne qui ont été formés. Mm -hmm. ah, avec la avec une coopération au Canada. ñu mhm. ah, dem Canada loolu mënoon nga ko souligner. donc yow euh, tu n'es non non lui il n'est pas au courant léegi beneen Macky sax mi ngi koy wax léegi ci message aussi bu ma yónnee. Mhm. nee na président Macky jeunes yu mel nii ñoom ñoo tax du nangoo fal benn jeune. non ce que j'ai dit c'est clair j'ai dit ñun on a fait des formations de jeunes. j'ai dit nous kii li mu wax nii cest dire peut-être. c'est l'initiative de la COJER de Foundiougne ñoom ñoo si unifié avec une coopération. Birame Cissé ñu def seen seen format mais ñun personnellement on a formé des jeunes sur des leadership. bon Birame Cissé yow très bien yow jeune nga yow yow jàng lu tax lu tax président. Mhm. Euh, falul ku mel ni yow. lu tax président ku mel ni man. kon ma président fal na ay yu mel ni man. yow mi lu tax président falul dara. bon président euh, lu tax la moo tax président falul ma dara donc je pense que question. question boobu Tounkara c'est de parce que tamit président tey tey su waree gis ne man war na mun a fal dina fal mais tey j'en suis fier am na ay jeunes yoo xam ne ñoo bokk parti ñoo xam ne tey ñooy liggéeyandoor président jëlee fal na leen léegi nag wërsëg na ku nekk. ah wërsëg la yàlla ah, léegi affaire wërsëg la dootul affaire compétence ak intégrité léegi. le mot est lâché léegi yéen euh, président moom euh, Thérèse Faye la la jël teg ko mu jiite COJER yéen ñëw ngeen teg ngeen seen COJER national. Euh, te ne ngeen président yëg na ko mais dara la gu leen est-ce que yéen am ngeen xabaar ci président lan la wax ci COJER nouvelle dynamique bi. président prononcé gu ci COJER nouvelle dynamique bi. Ah, bon lan ngay jeexalee waxtu bi jàpp nañu. bon li may jeexalee mooy comme euh, ni ñu wax léegi rek cest à ñun COJER nouvelle dynamique on est en de travailler pour jàppale président ci ses réalisations yu ñu def war ko vulgariser nit ñi xam ko. li nga xam ne la président def te président tey wax dëgg sa na wax na ko ne président def fi dara président def na fi loo xam ne nii c'est palpable c'est visible. waaw président def non en fait moi non je hmm. on demandé des réalisations vous avez pas répondu. quelle réalisation. du président de la République. parce que non non on va demander les réalisations. non non on vous a demandé des réalisations. vous accompagnez le président de la République dans ses réalisations. Mhm. ma ne leen donc yéen lan ngeen réaliser. soit c'est le président qui n'a pas réalisé ba ngeen mën ko accompagner. Mhm. wala soit c'est vous qui ne travaillez pas. non parce que cette question là du fekkee ne. fekkee les réalisations fekkee les réalisations du président fekkee les réalisations du pré le président tey teg na fi ay programme bëri tey. dégg nga li naan programme d'urgence développement oh, communautaire. Oh, dégg nga def ci loolu donc loo leen def ci loolu. programme d'urgence développement la fi nekkee c'est-à-dire dama ne benn programme boo xam ne dañuy dem si àll bi di tabax et piscine rurale di di di defar et piscine rurale defar et forage. loolu da ngeen di participer di defar électrification rurale. est-ce que participer ngeen si pour te dire loolu si parce que pour te dire loolu tey si PUDC loolu tey. man mën naa si wax loo xam ne nii tey def nañ ko est-ce que yéen participé ngeen si la ñu wax. si on a participé na ngeen nan ngeen participé. on a participé par notre expertise notre compétence te il y a des jeunes yoo xam ne tey ñu ngi sur place di participer par leur expertise par leur compétence. te tamit hmm. on a participé par notre euh, par notre effort bon à distance ou bien de près pourquoi parce que tey am na ñoo xam ne nii tey comprendre ñu xamuñu tey lan mooy hmm. PUDC. Hmm. xamuñ ko mais ñun tey ñu ngi soog suñu daal. xam nañu lan mooy PUDC. am na koo xam ne xamula la may Promoville am na koo xam ne xamula may Prodac te sont des réalisations yoo xam ne dafa exister PDC c'est un programme pas des réalisations c'est des mécanismes léegi léegi maintenant pour le PIDC non hmm. s'il vous plaît en tout cas laisse-moi terminer pour le PIDC le président a réalisé énormément de choses pour le PIDC on parle pas non non avec loolu non affaire bi eh, du waa PIDC bàyyi leen ñu communiquer seen PIDC on n'est pas là non non tu m'as demandé réalisation vous la République très bien léegi yow village on a nous nous à notre formation. on a des jeunes. on a on a vu que les jeunes manquent de formation. mais yéen du ngeen formé wu ba pare doo ko formé on a aidé les jeunes on a on a aidé les jeunes à se former. sur des domaines mais yéen da ngeen war a njëkk a former. c'est ça l'école du ah, parti wàllum idéologie wàllum est-ce que tey yéen par exemple yan innovation ah. ngeen indi en tant que jeune xam nga jeune mooy créer mooy indi idée yu bees ak yooyu yan innovation ngeen indi. tey innovation yi indi en tant que jeune c'est-à-dire que tey ñun dañoo war a jàppale jeunes bi ñu am benn beneen type de jeune au Sénégal parce que on a constaté que Sénégalais yi tey war neen changer xam ne tey ñun jeunesse bi ñoo nekk le fer de lance de notre pays donc si loolu nan lañ ko mun defee cest à tey un jeune doit innovation la ñuy wax de <laughs> góor gi alaaji. gis nga tamit. <laughs> professeur non euh, dinañ euh, mais mais euh, Birame affaire bi tamit boo boo ko defee nii rek léeg-léeg yow si bopp da ngay xaw a wàññi sa gëdd daal bu ñu wax innovation maanaam lu lu concret la daal lu bees la lu kii du du rek ay affaire de kii non léegi beneen affaire. Mm-hmm. yow tey jeune Sénégal yéen ngeen ni si jeunes yi ngeen bëgg yëngu lan mooy pourtant pourcentage yu jeunes par rapport ak population sénégalaise. pourcentage bi par rapport bon ñun xam nañ ne euh, Sénégal nous sommes euh, un pays euh, dont on fait plus de soixante-quinze pour cent de jeunes lan mooy un pays dont on fait attention les connecteurs logiques. connecteurs logiques suñu étudiants yi. maîtriser bi ñu ko def un pays. donc Ornica. nous avons une population jeune au Sénégal. 75 pour cent de jeunes nous avons une population jeune. Ah bon mais euh, attention léegi école du parti ñoom Djibril War war nañu lijjanti xale cogère yi. ñu mën a lijjanti wax ay. phrase yu jóg mën xam ay connecteur logique bañu def ay fautes yoo xam ni man bi ma nekkee CM2 fautes yi moo ko def de boo xalaatoo ko sax frère Patrice di ko. mais xëy na dafa jub puisque ñoom ñi ngi formé ay jeunes tamit. xam naa mais ne ko dama population jeune. waaw am na. nga ni 75 pour cent on a ban ban tranche d'âge ñoo am 60 ñoo nekk 75 pour cent ci réew mi. ban non non pas. Euh, professeur bi naan nii naa nee na nga bàyyi mu sedd. bàyyi mu sedd xale xale xale yi. non euh, Paa man dama am problème ak xale politiciens Sénégal franchement man nëbbu ma ko. Euh, politique dafa soxla bagage. c'est ça politique du fo. politique du rek pour pour ay prébendes pour rek ah, xam nga positionnement personnel. guerre de positionnement. politique c'est extrêmement sérieux doo génn sa benn àll bu xonq fële. ñëw ne ñëw rek ñëw kandang kandang xujur xujur. ne da ngay politique alors que. dafa am bagage yoo xam ne ñoo war a jiitu biram te bagage yooyu new fi léegi bu fi nekkul après yow lan ngay wax su fekkee amoo fondation ba ban miir nga mën taxawal. loolu loolu mënta ne. Euh, te loolu vraiment ñoom maître waar yooyu ñoom Djibril waar vraiment am nañ si responsabilité bu mag parce que 2012 ba léegi seen euh, école parti bi bu taxawoon. au moins jeunes yi bu ñu toogee fii. doxul de genre genre njaaxum yi. doxul de euh, tëjal ñu ñu ñu avant neel neel Nina sedd na. sedd voilà ok Nina sedd na. Nina sedd na bonne nuit. ñu lay déglu. ok bon de toute façon kon nu ma ko waxee rek maa ngi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. non jeune du du du ay gërëm. ay sant jeune du message ay action ay innovation. tu vois des choses qui sont xam nga. ñu des envolées lyriques. voilà ñu yëg ni vraiment un jeune était là. plateau bi ku si ñëw da ngay réfléchir. innovation. de toute façon de toute façon nous en tant que jeunes. waaw mais mayel Paco mu wax innovation Paco loo si bëgg a wax. collège national des primo-votants. Hmm. ah nga xam ne day jël quarante cinq départements bu nekk day am représentant connecté au président de la République. pourtant li mu wax nii moom laa. ah loolu innovation la. li nga wax nii li nga wax nii. ah loolu de innovation la. li nga wax nii. Paco Paco tey dafa am gàcce parce que moom tey moom moo koy waxal li nga war a wax. Paco parce que heureusement que le président de la République. ne compte pas sur l'APR pour avoir son deuxième mandat. ah oui mm. ah, ah oui. ça c'est ah évident c'est mais parce que xam nañu que. gën ko dara plus le temps à ah, se quereller. c'est ça des trucs de positionnement que. de sensibiliser les gens parce que président bi ko yàlla dimbalee mooy. weerante xuuxante kiitu béy. Mm. Ah, waaw foo dem ci dëkk bi gis ay réalisation mm. et donc il y a des personnes mieux habilitées que ces ah, jeunes là. pour divulguer yaa yi. non non xeebu ma leen parce que je pense que. dañu war a dem président. mais pas di xeexante guerre de positionnement. le Sénégal nous appartient à tous. Mm-hmm. comprendre. fu mm. demee ñëpp la demal. mais mais mais man dama jàpp tamit ne que lii photo président la. Mm-hmm. parce que président moom mooy sanc parti bi. ñoom dañ koo bëgg topp ko aussi. Euh, bi mun naa président moo sanc parti bi moo koy jiite moom moo war a superviser structures yi di dox. Mm-hmm. ba jeunes yi ñu forme leen idéologiquement former leen sémantiquement forme leen en termes de verbe en termes de prestance en termes de contenu ba fu ñu taxaw ñu ne ah jeune APR yi gong. mais du parti. waaw mais mais mais président tey. Ah. maître waar bi mu fal fii Jibril waar pour mu jiite parti parti. école euh, bi école du euh, parti école du parti bi doxut. te ba pare président bàyyi noonu maître waar depuis boobu ba ba léegi ba démb ba sànq ba tey lu tax loolu. doxul de jeunes yi tey c'est des victimes jeunes yi bëgg nañ xam jeunes yi bëgg nañ liggéey. jeunes yi bëgg nañ dem. mais tey APR moom moo taxawlul loo xam ne jeunes yi mën nañ si gis seen bopp moo tax ñuy créer ay nouvelle dynamique ay nouvelle tendance ay yooyu c'est parce que. ce n'est rien d'autre que wane ne. maa ngi nii dafa ëmb ba pare ay ay ay doom di di di benn doom a ngi nii toog léegi doom bi bu toogee est-ce que kan lay représenter. kii tey APR le représenté ah mais tey yow est-ce que tu es fier de lui papa. bon je dis fier c'est un gros mot mais je veux dire je peux le comprendre. mais. ah da nga koy ñëwoon ak kii appel. moom mooy woote nii euh, naa ni Thérèse bu fekkee ni suba disponible nga rek ñu invité la fii en direct nga tey nga ñëw toog. voilà ne ko suba mooy gan monsieur monsieur Tounkara na bu toogee xam nga man tamit euh, suba invité nañ la fii ci plateau. tey lu lu Paco wax nii ñun dañ ko am projet boobu projet des primo lu Paco wax nii ñun on l'a et projet des primo votants dañ siy def jog jéego bu rëy dañ siy liggéey. lan mooy primo votant primo votant ce sont les jeunes qui euh, qui n'ont jamais voté ne mosoo mosoo mosoo voté projet boobu primo koy dégg suñu lañ ko jëkk a déggee Caution du dynamique mhm. ñu ñoo ko jëkk wax ci gémmiñ mais on va tout faire parce que on s'est rendu compte que en réalité jeune bu jeune boobu xamul lu bëri ci politique mhm. xamul lu bëri ci régime Abdoulaye bu fi jógee kan la xam Macky Sall la xam donc jeune bu jug 2000 ba 2018. kooku ñun COJER ñun national nouvelle dynamique ñun suñu waral dañuy ñu ko. aywa léegi léegi léegi dañuy jeexal moom parce que waxtu bi jàppale ko Birame Cissé léegi si euh, loolu si si primo votant yooyu noonu. Hmm. tey ñun am nañ si benn projet boo xam ne dañ ko boole au niveau. national te commencé nañ ko parce que ñu ngi installé conseil nouvelle dynamique ñeneen ñi dañuy seen projet yow bu la pako cuq rek nga ñëw génne seen ay mbootu biir kër léegi Euh, président PSE la teg fii. nee na moom lay nar a euh, doxalee réew léegi léegi li ñu bëggoon rek mooy nga fàttali ñu rapidement vision PSE après ñu tëj émission ok bon euh, de toute façon euh, président moom euh, li muy comment dirais-je PSE bi dafa nekk loo bi ne c'est un projet phare. la vision bi laa wax rek ñu fàttali ko rapidement. vision PSE bi c'est euh, ce qu'on appelle l'aménagement territoriale encore tamit vision PSE mooy tey ñun Sénégalais yi ñu am tey dund bu rafet dund bu gën anam dans euh, comment euh, l' avenir dans la avenir tey si loolu am loo xam ne ni tey président daf ko def am loo xam ne tey président daf ko def bon euh, léegi dañuy xaw a kii tuuti ñu def nànk rek parce que vision PSE moom du loolu daal Euh, nga baal ma rek mais vision PSE xam nga dañ ko bind ba mu leer nañ yow tey da nga ko waroon xam par cœur foo toog wax ne PSE lii moom mooy vision bi si teg bu ñu la laajee yow PSE yan mooy les axes prioritaires axes yi nga wax ko tari ko ba mu leer axe PSE yi xam nga ñaata la eh trois axes hmm? ay ne tuub ko tuub ko <laughs> professeur professeur waaw na ko tuub ba noppi yow xaaral bi mu tuub ko est lii tamit tuub ko biram tuubal. tuub naa ko. Ah. biram waxal tuub naa ko. Euh, loolu la école bi di gis jóg seen bopp. loolu ñoom jóg nañ si sax parce que sànq ñu ngi message professeur parce que euh, euh, nu mu tuddati Thérèse nee na moom dafa sax ruus. beneen bi mooy Diawo Fall mooy porte-parole lu COJER national nee na toutes les formations que Biram a citées c'est l'œuvre de la COJER nationale. Hmm. donc ñoom si seen jëm ñoom ñi xam. baax na ci bu ñu leen invité ci plateau yi ngeen ñëw toogal fi seen bopp pour ngeen mën a wax parce que lii baaxul ci président Macky Sall te yéen ñi nga xam ne yéen a ko fi nekkal ñëw leen ngeen toog ci plateau yi. Euh, delloo njukkal delloo njukkal ñoo ñëpp di dugg euh, sama étudiante boobu. Euh, Thérèse Faye Diouf moom it di ko delloo njukkal vraiment suñ suñ suñu tasee nag pa ji bi vraiment daf may jox sama. est-ce que du dissoudre seen kii de. mais si bi ñu bi ñu def nouvelle dynamique bi ñu def voilà nouvelle dynamique. yow yow ñii di positionné wu ñu ñu dissoudre. mais parce que ils ne sont pas vraiment convaincus. mais buñ ko dissoudre après fan la ñuy dugg. ñu delluwaat delluwaat mais bu ñu demee Thérèse ne leen yéen da ngeen da ngeen génnoon xeet dootu leen fi duggaat. la Thérèse nee na l'affaire a des c'est vrai treize nee na l'APR a des jeunes très <laughs> cultivés. Ah xam nga ñun suñu problème déjà mooy qui est jeune et qui ne l'est pas. parce que gis naa fi benn parti buy changé ay texam ne léegi da ko yóbbu ba quarante ans pour pour ku nekk jeune. ban ban parti la. mooy réew mi je pense que seen dernière kii bi ñu ko changé dañ ne dañ ko yóbbu léegi ba quarante ans donc ñun problème boobu aussi la ñu am ñi de jeunes yëpp dépassé nañ trente cinq ans bu yàgg. la plupart dépassé nañ trente cinq ans. ñii di solution euh, léegi euh, sunu ay. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que maam jeunes yi jeunes yi dugg ci politique vraiment nañ dem uti formation nañ dem ut ndëgër laay nañ dem ut ay tu ay ay jumtukaay yoo xam ne fu ñu toog ñu xam ni kii gongo kii mën nañ am yaakaar ci moom euh, vraiment mën a jàng ay éléments de langage xam vraiment lan mooy soubassement politique affaire yi fan lay jaar lan mooy participation politique lan mooy projet politique vraiment mu leer naa ngi seen bopp mais euh, loolu tamit mag yi leen jiite am nañ ci responsabilité bu mag vraiment ah, mag yi seen bopp la ñuy gérer bàyyi booy yi ñuy xeex foofu di rayante de plus souvent xale yi lu ñuy def ci mag ñi lañ koy gisee mais mais bien sûr donc euh, quelque part daal te lii yëpp responsabilité bi dañ koy delluwaat ci président parce que président moom moo nanguwul déjà cogère am démocratie xam nga loolu rek déjà njaaxum la boo jëlee kenn ne tabb ko par force mais ñeneen ñi pako mun nañ lànk te bu ñuy lànk si suuf nànk-nànk di ko di ko di ko murmurer un jour rek dañuy day comme comme nii xale yi dañuy jëpp euh, yuuxu delloo njukkal suñu ay euh, technicien vraiment euh, ñoom liggéey bu mucc ay moo tax ngeen ñuy gis ni guddi gu nekk diggante altine ba àjjuma fii ci fii ci 2STV suñu ay naataangoo tey yi ñu àndaloon ñoom ñoom Aïssatou ñoom Paco ñoom Bijou. bu ñu paqueté dañu sol yére de. ah waaw léegi nag waaw noonu la rek bàyyi ñu détaillé paqueté la. non bàyyi détaillé Aïssatou détaillé ko rek. maa ngi jaajëfal sama couturière Ndoumbe Ndiaye Malika. aywa. Paco waaw waaw dégg nga ñoom yow journaliste nga yow doo fi nekk di gërëm journaliste la waaye est ce que ñoom bu ñu jàppoo ci combat bi dinaa am lu ma sol di toog waaw <laughs> ñawkat pako ñawkat la ñu wax de duñu fi tudd tey may bàyyi na ma tëj non non may bàyyi na ma tëj damay tëj man damay tëj sama bos laay tëj man. d'accord di jaajëfal euh, Awa Ba ak euh, doomam depuis Mauritanie Mouhamadou Rassoul. ñu ngi seetaan vraiment ñu ngi bëgg émission bi. waaw soo ko tëj. <laughs> tëb naa la la. non non non maa ngi nuyu. ay Pago. madame si mais mais yi début bi la. maa ngi maa ngi maa ngi kii du moins maa ngi. daf kuku madame si. di sa wëllëre di Mami Niass. jabaru Moustapha Sy. di nuyu euh, docteur Anta parce que moom aussi dañuy suivre. Mm-hmm. bëgg naa ko sax indi ci plateau sociologue ah waaw sociologue. très ah, calé. xam nga soxla nañ ko fi. vraiment naa ko indi. xam nga mm. di gërëm Baara First Class continuer joxe numéro bi. Baara First Class nag moo yëngal jamono moo ñëw fii. moom vraiment am na am na maanaa. First Class la affaire am tudd téléphone bi. 77 402 17 17. dem leen parce que tissu yi nooy na ci yaram. doo picc doo wóor doo gaana. jëlal man ci suuf. aywa kaam suuf. <laughs> ca kaw. laa léeg laa garaam boobu talent boo koy sol kooku maa ngi nii ah <laughs> lii étincelle couture moo fi jaar sama papa euh, Pambay moo fi moo fi moo fi génn Badara defar ma ba mu naay si nii ah, ah. Euh, Aliou Thérèse Faye nee na demain incha dina ñëw sur le plateau. ñuy gërëm Rama Maki ñoom ñëpp ñu ngi ñuy euh, di gërëm ñooñu ñëpp toog di ñu setaan. Rama Maki day ñëw moom tamit. waaw ñoom ñoo ñooñu baax nañu ñëw ci plateau bi. Modou Maki mën na ñëwam. noo Rama na ñëw rek ak Thérèse. mooy sa waa ji ah. Modou Maki. Modou Maki day teewaar moom. waaw ah, professeur man maa ngi jaajëfal képp ku toogoon sa kër du ñu seetaan. Ah, di dellu di nuyu waa sama village waa Wadebere di nuyu également sama di nuyu Ali alors ah, euh, Paaji bi. man en fait euh, damay damay damay saluer kii liggéeyam. am na aussi benn waaw comme comme ni mu ko amee mhm. ah oui bu baax a baax sax mais dama gis beneen jeune entrepreneur aussi koo xamante ni Tidiane la tudd nekk Sicap fii nii Sicap euh, centre commercial Sicap Plateau. waaw ah, donc moom moo may ñawal. mais euh, c' est un boo xamante ni su ma demee waxtaan yi laay am ak moom. est ce que xam nga les instruments yi état mettre à votre place est ce que les gens viennent vous voir. est ce kii. mais c' est des jeunes qui sont laissés à eux que ñooñu ñoo jara dem dimbali. bàyyi ñi nga xamante ni xëy na seen gagne-pain yëpp. politique la seen mandat yëpp politique rek la ñu yaakaar pour am dara moo tax mu jaral leen seen bakkan amuñu beneen liggéey ñi nga xam am nañ liggéey ba pare di góorgóorlu je pense que ñooñu la ñu war a dem jàppale. voilà maa ngi remercier Kiné John. John Atelier. <laughs> voilà notre sœur waaw ouais, notre sœur à nous. voilà et aussi salon CN Style 77 789 22 57. di ñu jaajëfal aussi Nafi Diagne mi ñu maquillé mu ko fàttu. tey sama maquillage dafa rafet nag. ay euh, Mamadou Bass yow loo jeexale. tey da nga jongo ma. Euh, jongos damay remercier sama équipe bi nga xam ne ñoom laa liggéey. Hmm. Euh, des personnes responsables. et ñu nga xam ne ils son ils ambitieux aussi. Mm. je le dis merci parce que peut-être que man maa toog ki tey di wax. mais c'est des personnes formidables voilà c'est un travail d'équipe euh, aussi di lancer message aux jeunes ne leen ni bu ñu toog di xaar. Mm. parce que togg di xaar sotteelul dara. parce que chainu agriculture déjà la chaîne déjà gudd na le marketeur mën na ci évoluer ki def euh, commerce international mën na ci évoluer le comptable mën na ci. évoluer ñëpp tout le tout le monde est la dedans. culture c'est la vie. donc donc pour wax leen ne chaque jour ku ci yeewu nay nay def lu nga xam ne dina ko dina ko motiver à chaque fois muy muy muy jógee ci lalam. est-ce que. Euh... et aussi merci à ma famille. Birame Cissé loolu jeexale. Euh, jeunes yëpp pour ñu jóg dem euh, porteur de projet yi parce que DER bi euh, c'est une réalité ça existe la direction générale de l'entreprise LAPIT ku nekk sa département soo demee dépôt yi commencé na au niveau de la préfecture ku am. ku am projet boo xam ne nii donc bëgg a en œuvre soo soo jëlee sa projet nga déposé ko au niveau de la préfecture incha allah rabi di nga jot sa financement. te tamit si loolu ma rappeler un peu les les euh, financement yi si domaine agriculture la pêche élevage artisanat tourisme transport. la la la ma siy wax. léegi yow euh, affaire bi duñ ko politiser affaire u DER bi. ko politiser non non. doo doo am benn politisation. jeune bu jeune bu nekk porteur de projet yor sa projet dem déposer ko au niveau de la préfecture incha allah rabi su fekkee ne projet bi c'est bancable di nga jot financement. c'est pas problème de. Hmm? pourquoi présidence. pourquoi ah. bi direction mu ngi nekk fii. CDC c'est une délégation qui est logée à la présidence. mais direction fan nekk. la délégation en tant que telle. en tant que en tant que. en tant que. on n'a pas confié ça la délégation en tant que telle mu ngi euh, ci bâtiment CDC bi fa la nekk nekkul présidence. c'est pas présidence présidence lay nekk eh, euh, <laughs> Amara Amara fii si waagu ñaay moom moo ñaw li xale bu am jom. ça xale bu am jom. Eh, Amara ah, vraiment daal euh, xale bu am jom daal vraiment moom sorxo sorxo nekku si vraiment euh, Dóor waar euh, loolu la xam soxna na fi jàlloo magam moom it di ko di ko ziar ñoom Awa ak Adama Diouf ah ñooñu non non ñooñu ce sont mes jumelles vraiment ak Pa ñoo ñëpp di leen ziar mais sun réew mi daal war nañ ko lijjanti. jot na ko franchement réew du foo réew du caaxaan dañ war nañ si vraiment jublu jox ko euh, gëdd euh, rëdd ban Sénégal ak ban sénégalais lañ bëgg parce que ñun li ñu gis nii du Sénégal bii lañ bëgg du sénégalais bii lañ bëgg donc loolu euh, war nañ si liggéey daal dëggantaan. mu nekk vraiment projet boo xam ne dafay leer si bopp ñëpp kenn ku nekk jàpp si kenn ku nekk bay waar. pour mais mais les trois axes du PSE. waaw Sénégal nouveau la. ak lan. Ah. ak lan. ak lan. il a dit les trois axes. dégg nee na trois axes. moom moom ah moom yow ñaata axes nga wax. mais yéen yaa ñu war a jàngal PSE. Hmm? man de du ma la ko wax tey. dama la wax vision bi dama la wax axes surtout la vision à la base. mais loolu vision bi bu leerul sa bopp déjà yow da ngay tëñëx tëñëxi noonu rek da ngay dem rek mais. xam nga tey jii waroon nañoo xam sax taux d'achèvement fan la toll. réalisation yi bien sûr xam nga dugg si yooyu. fekk yow vision bi sax leerul sa bopp. tu vois da ngeen di jàppale président te une vision président xamu topp naa sa ndigal euh, léegi sunu ay euh, techniciens sànq ziar leen mais sunu ay euh, téléspectateurs vraiment ñoom amuñu seen fay. Euh, diggante altine ba àjjuma euh, bu fukki waxtu si guddi jotee dañuy toog di ñu xaar ànd ak ñun lu mu guddi guddi. Mhm. Euh, ñooñu moom vraiment amuñu seen fay. ñenn yi dañuy yéex a tëdd teel a jóg ngir xëdd ak yooyu mais émission bi jaral na leen ko ñooñu ñoom ñu ngi leen di ñaanal suñu borom mu fay leen gën di fay te dig leen daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam. incha allah jërëjëf.